asalaamaaleykum mbokku internautes yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp koo xamante ne gan nga ci suñu chaîne bi duñ la wax leen loolu nga abonné ci euh, activer cloche bi loolu dana la permettre vidéo bu ñu dugal da ngay bokk ci ña koy njëkk a seetaan wooy leen di like ak a commenter te di partager vidéo tamit loolu lu ci am solo la loolu bokk na ci li ngeen ñu mën a maye doole mbokk yi ñëwal leen ci benn interview boo xamante ne kii di Sofiane Diop euh, mooy le franco sénégalais et marocain nga xamante ne defoon na ko bi saison bi wàjjee commencé donc ci biir interview boobu noonu Sofiane Diop mi ngi ci doon wax que ni euh, bu fii saison bi di jeex euh, maanaam fii saison bi jeex dina def soit euh, sélection que ça soit Maroc que ça soit Sénégal wala France dina ci tànn benn ci biir boobu la interview mi ngi ci wax ne c'est difficile nag nee na c'est pas évident nga def soit parce que quand on parle de champion d'Afrique quand on parle d'une équipe de Maroc boo c'est la dafa de demi-finale euh, coupe euh, coupe du monde quand on parle d'une équipe de France boo aujourd'hui c'est l'une des meilleures équipes au monde donc c'est très difficile pour nous de faire bi mais Inch'Allah, nous incha allah dina def euh, li nga choix international am ci fin de saison bi incha allah kon ñu nous ko rek parce que saison est 4 journées et tout le monde ci peut-être que mu avons ci sélection sénégalaise bi ci ci mois de juin et de jëm peut-être. On espérant on espère mais li que euh, actuellement ni fédération yu bari ngi contacter ay parents papam donc pour wax que ni soxla nañ euh, soxla nañ ko ci euh, projet et tout donc instant bi mom da da a ci saison bi donc saison donc instant bi saison bi jeex na promesse bi inshallah dina ko def kon nañ ko